chers téléspectateurs de la 7TV nuyu nañ leen am mbégte a contenté dalal leen encore une fois seen émission avocat le droit à votre service l' émission qui traite de l' actualité juridique waaye émission bi nga xam ne tamit moom mooy traité cas yi nga xam ne yéen a ngi koy yéen a ngi koy dund tey nag ñu bëgg ñëwaat un peu sur li nga xam ne mooy le nga xam ne président de la république jël na ko pour wàññi li nga xam ne mooy loyer bi léegi nag dafa am ñaari camp yoo xam ne dañ see nekk maanaam les locataires ak les ak les bailleurs locataires yi gis nañ seen bopp appliqué nañ li nga xam ne mooy baisse bi mais nag bailleurs yi ñoom seen bopp dañoo xaw a vraiment réticent ci li nga xam ne mooy décret parce que nee nañ dafay wàññi li nga xam ne mooy moom lañ doon am comme revenu mais aussi tamit comme bénéfice parce que nag ñoom ñoo investir sur l'immobilier te xam nañ immobilier nu mu chéré ñoom ñoo investir ci tabax bi te xam nañ aussi tabax nu mu chéré vraiment wàññi bi dafay xaw a metti ci ñoom trop te am nañ ay charges yoo xam ne war nañ ko mën a prendre en charge ci li nga xam ne mooy seeni i bien immobilier moo tax tey ñu def si benn taxaw seetlu dem seeti ki nga xam ne mooy Aïdara Niang nekk secrétaire général du FACIS maanaam fédération des bailleurs loueurs nga xam ne ñoom ñoo taxaw taxawaayu ànd ak ñi nga xam ne mooy les bailleurs pour dimbali leen ci si nga xam ne mooy seen mooy seen liggéey boobu ak seen investissement boobu ñu déglu ko mu wax ci li nga xam ne mooy décret bi lan lañ ci xalaat ñoom yan impact lañ ci lañ ci am mais aussi yan suggestion la ñuy joxe pour mu gën a sedd ci seen côté waaye aussi sedd ci li nga xam ne mooy locataires yi parce que ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xam ne mooy secteur bi. jërëjëf monsieur Tall maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa teewaay fii li ngeen di ñëw seet suñu. pour ñu waxtaan ci mbirum euh, immobilier ak baisse loyer bi nga xam ne moom la état du Sénégal jël. alors euh, di am contentement bu baax nga jël ma fi pour ma am euh, ay leeral yu ma indi ci décret bi indi ko ici aussi ci jumtukaay bi nga xam ne moom la état bi teg muy commission nationale de régulation des loyers. ngir mun a accompagner euh, baisse su loyer du ma wax copier-coller parce que peut-être c'est un peu simpliste de dire copier-coller parce que comme sur la forme comme sur le fond euh, am na ay différence bon loi 2014 bien que euh, demande la bu askan bi amoon pour mun nañu réguler loyer bi wàññi ko euh, ci loolu dafa am texte de loi bu ñu projet de loi bu ñu yóbbu assemblée pour euh, voter ko donc euh, mu wuute ak euh, décret bu bees bi muy décret 2023 bi nga xam ni au lieu de loi décret la boo xam ni euh, sañ-sañ bu conseil constitutionnel jox président la pour mu abroger loi 2014 bi fi newoon bien que ci principe bi ay taux de réduction la ñu la ñu la ñu appliqué mais li bees ci mbir mi mooy bu weesoo taux de baisse yi dafa am li ñuy wax une commission nationale de régulation de loyer boo xam ni mooy ñëw euh, pour mën a gën a topp lépp loo xam ni moo jëm ci wàññiteefu loyer yi ak yi réguler activité de transaction ak gestion immobilière fii ci Sénégal bien que même sax si taux yi c'est différent parce que loi 2014 taux yi bokkul ak loi bokkul ak décret bi maintenant li li ci li nga xam ni moom mooy moom moo ci yokkute mooy suivi bi suivi bi ak commission nationale de régulation bi alors ñun en tant que fédération am na tamit benn jàngat bu ñu am ci euh, chronologie bés yi jàngat bi moom aujourd'hui peut-être état du Sénégal bëgg na inciter euh, bailleurs yi à ce que ñu euh, réglementaire su su ma waxee loolu mooy lan mooy soo xoolee depuis bi bés bi amee ba léegi peut-être soo laajee expert immobilier yi dinañ dinañ la ko wax seen liggéey gën naa gën naa euh, dox boobu mi ngi doon dox peut-être mais gën na gën na am charge ak gën nañ am charge de travail parce que soo xoolee léegi bailleurs yi ñu si ëpp bi décret bi génnee ñu wax ne dañuy dañuy wàññi te décret bi wàññi bi dafa concerner ñi nga xam ni bailleurs yi nga xam ni ñoom calculer ñu seen loyer ci sur la base de la surface corrigée bailleurs yooyu yëpp dañoo daw wuti experts yi pour ñu defal leen seen surface corrigée donc euh, muy tamit bon benn effet peut-être bu positif parce que aujourd'hui on oriente les bailleurs à ce que ñu mën a régulier réglementer ci seen euh, location et que aujourd'hui suñuy louer euh, seen appartement wala seen i seen i bien ñu mën a jëflanteeg li yoon wax léegi depuis en tout cas bi ñu annoncé baisse bi moom ba ni ñu ni ñu euh, euh, décret bi ni ñu ko ni ñu ko euh, affiché au journal officiel on a vu que ni en tout cas suñuy client bailleurs yu bëri orienté wu ñu nañ ci experts yi pour ñu mun leen defal seen surface corrigée ñu mun a wàccook yoon maintenant loolu tamit njeexital bu baax la maintenant commission bi nga xam ni moom la ñu teg aujourd'hui Euh, peut-être bu bu ñu ko bu ko mettre en place parce que commission bi il faut que ñu xam ni aussi euh, acteurs yi nga xam ne ñoo sekk immobilier ci Sénégal yëpp ils sont représentés waaw muy bailleurs yi muy agence immobilière yi muy euh, ministère des finances ministère de chargé de de de de euh, comment on appelle ça de de des domaines donc ñoom euh, ñëpp tous les acteurs il euh, ils sont représentés dans la commission et tey commission bi euh, dafa am sañ-sañu tey projet de loi wala texte de loi bu ñu bu ñu mettre en place moom mu am avis bu mu ci jox pour saytu ko mën a xam ni niñ koy doxalee et nu mu gën mën a ñoŋ pour euh, mën a organiser secteur location ci ci Sénégal donc loolu am na ci solo. là là les responsabilités sont partagées. les responsabilités carrément son partage mais il faut savoir que aussi état du Sénégal texte yi nga xam ni mooy jëm ci luy régir ak organiser mbirum loyer nekki na fi lu yàgg donc texte bu ci ne ci nu ñuy calculer location ni ñuy calculer loyer ni ñuy évaluer kër loolu yëpp état du Sénégal yàgg na koo tëral texte de loi yaa ngi fi pour ñu appliquer ko maintenant comme ni nga wax bailleur bu ko appliqué wul. Euh, bu état du Sénégal ci bu saytoo gis ne am na am na problème ci ci situation ni ni ni ni location yi tëddee am na ay euh, ni ñuy wax hausse illicite de yi mu décider euh, teg benn décret pour mën a pour mën a renforcer wala boobu pour mën a réprimer ñi nga xam ni ñoom respecté ñu loi bu boobaa bailleurs ñoom dañuy obligé euh, appliquer li li yoon wax mais yoon moom yàgg na fee ne teg fi ay texte de loi pour que bailleurs yi mun ko appliquer voilà maintenant surface corrigée boobu nag pour précision euh, surface corrigée boobu da lay génneel la valeur réelle de ton bien immobilier donc valeur réelle boobu noonu moo lay mooy tax nga mën a génne sa sa sa valeur loyer wu kër donc euh, peut-être bu ko bailleurs yi doon appliqué peut-être njëriñu tegaat fi ay loi bes doonul woon mën a am maintenant surface corrigée boobu nag li koy li koy euh, aujourd'hui li koy li koy caractériser li koy expliquer c'est la loi 77 527 euh, bi nga xam ne moom mooy organiser le calcul de des loyers et que tey euh, loi boobu mi ngi fi yàgg na fi ñu ko appliquer bailleurs yi ko appliquer ils ont pas de problème ñoom ñu ngi continuer di di di. di euh, di appliquer seen i seen i seen loyer normal ñu ko appliqué wul nag ils sont obligés de se rabattre au décret le décret bu bees bi décret 2023 bi est opposable à tout bailleur bi nga xam ni appliqué wul la surface corrigée alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que mesures yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu teg bailleur bu ko respecté wul forcément yoon dina daan sa kaw donc nga respecté ko mooy li gën parce que boo ko respecté wul yoon dina dal sa kaw aujourd'hui euh, bailleur bu am kër di ko louer première des choses c'est que da nga war a présenter sa locataire un décompte buy expliquer ni nga ni nga euh, fixer sa sa loyer loolu boo ko deful euh, aujourd'hui yoon daan na la pour que daan na la lu ëpp ay amende daan dina la am amende bu mu la jox bu mu la daan et aussi euh, dina la daan tamit ay ay ay weeru prison wala atu prison donc euh, ku ko ku ko respecté wul yoon daan sa kaw donc forcément faa ñu respecté ko loolu mooy njëriñu aussi aujourd'hui commission boobu ñu teg parce que commission bi day doon interlocuteur entre le bailleur et le locataire pour mun leen expliquer ku ci nekk lan mooy say say say devoir ak say droit par rapport ak sa bailleur wala par rapport ak sa locataire Eh, tey ku ci am kër wala am appartement bu ko loué nga xam li la warloo ki ngay jëflanteel. non caution bi moom léegi c'est déterminé deux mois de caution dont un mois payé à l'avance et le deuxième mois étalé sur douze mois ku ko fay ku ko ku ku war a jël kër loolu mooy condition yi pour nga nga accéder c'est les condition d'accès et en plus de ça ñu yokk ci ne le loyer est payable ne n'est plus payable à l'avance il est payable à la fin. mais c' les conditions d' accès bi ngay bi nga doon fay booy jël kër. loyer boobu bi nga moom nga doon fay à l' moom lañu la wàññil ne la mën nga ko fay bu weer bi deewee donc caution bi moom c' est est décret bi lu mu wax leer na c' deux mois de caution et puis euh, le deuxième mois est sur douze mois. en tout cas ñun moom lu lu concerné lu concerné. Euh, les bailleurs yi nga xam ne ñoom ñun moom moo nekk au sein de notre fédération yi nga xam ne ñun ñoo ngi leen di gérer seen i kër ñun on a on a euh, dañoo am prérogative bu conseil conseiller les bailleurs donc euh, yu texte de loi bu génn wala décret bu génn bu ñu ko étudier ñun au sein de notre fédération ba pare ba xam les tenants et les aboutissants dañu am obligation wu. informer bailleurs yi ci nii euh, kii bi tëddee nii nii euh, décret bi tëddee et li ñu leen war a informer mooy tey bu yoon bu yoon waxee ni deux mois de caution la deuxième mois de caution étalé sur douze mois ils seront obligés de l'accepter en tout cas ñun bailleurs yi dañ leen di conseiller orienté leen à ce ñu tegul ci yoon wax. maintenant bailleur bu teguwul li ci yoon wax nag bu boobaa tu c'est à tes risques et périls loolu voilà voilà voilà euh, gis nga ci question boobu ñun au sein de la fédération euh, avec notre président monsieur Mamadou Mbaye dafa lu muy faral di wax mooy lan aujourd'hui suñu bëggee régler problème mu loyer ñu def la réforme des 3F mooy la réforme du financement du foncier et de de de la fiscalité tey il faut que ñu revoir réforme trois euh, les trois F yooyu noonu foncier financement ak fiscalité déjà fiscalité bon c'est vrai que état du Sénégal am na jéego yu mu ci def ak baisse bi gën a simplifier euh, paiement contribution globale foncière yi gën a gën a simplifier aussi impôt sur le revenu euh, ce qui est déjà bien c'est déjà bien mais euh, lu baax comme ni ñuy wax du doy donc euh, foncier bi aussi tey cher na cher boo xam ni jéggi na dayoo jéggi na dayoo et c'est à c'est prendre en compte ci tey booy booy booy louer sa kër muy aussi euh, la la le financement parce que tey aussi euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy presque immeuble yu bees yëpp ngay gis lu ci ëpp boo koy financer da ngay jaar par banque te boo jaaree ci banque banque dafa am taux bu mu lay bu mu lay fixel taux prêt prêt bancaire la lay jox ba pare fixel le taux te taux yi des taux 6,5 pour cent et cetera mais boo demee ba ci biir tu vois que ni tu payes plus de 15 voire 18 pour cent de taux ngay remboursé ce qui est exorbitant et loolu aussi il faut qu'on qu'on que ñu que ñu que ñu que ñu càmbar ko ñu xool ko parce que euh, boo xoolee fiscalité bi rek bàyyi foncier bi bàyyi financement bi revoir ko bu boobaa euh, dina am problème encore ci ci ci ci ci mbirum loyer bi encore ça il faut le reconnaître am na ay coppite ci fiscalité mais aussi foncier bi war nañ koo xool foncier bi surtout euh, li ñuy wax euh, le décret 2010 439 décret 2010 439 boobu dafay fixer li ñuy wax barème des prix des terrains au mètre carré des terrain nu et des terrain bâtis barème boobu noonu li koy fixer mooy li ñuy wax la commission d'évaluation benn commission d'évaluation la boo xam ni dafa nekk au sein de la de la de la de la commission de contrôle des opérations immobilières commission boobu noonu euh, mi ngi rattaché wu rattaché wu ci ministère euh, chargé des domaines mais commission boobu dafa am sañ-sañu ak euh, prérogative ñaari at yu ne muy évaluer prix wu terrain ak immeuble yi ci euh, Sénégal tout le territoire sénégalais que ça soit à Dakar ou bien dans les régions bu génnee barème yi da koy présenter euh, la commission des opérations immobilières commission de contrôle des opérations immobilières commission de contrôle boobu noonu euh, présenté ko le ministère chargé de domaine buñ ko approuvé bu boobaa prix des barèmes terrain yooyu moom la ñuy utiliser pour mun a calculer valeur u appartement yeeg kër yi à travers la surface corrigée mais décret boobu muy le décret 2010 depuis 2010 kenn réévalué wuñ ko et décret boobu ci prix wu bare mu terrain yi dafa fixé ne tey par exemple euh, euh, plateau prix wu terrain ci barème boobu ñu mi ngi ko fixé à mille alors que tey la réalité c'est que plateau prix wu terrain newul ci marché bi du 300 000 francs le mètre carré aujourd'hui prix wu terrain presque plateau ñi ngi à 1 million 500 te état dans son pouvoir régalien am na possibilité bu fixer barème yooyu bu commission bi fixe barème commission d'évaluation bu fixer barème yooyu ba pare état mun na gis ne commission bi xool na en fonction du marché ne prix wu terrain par exemple plateau 1 million lay jar mu ne bon ah man ci ni ma ko gisee un million cher na je le fixe à neuf cent mille francs donc état am na sañ-sañ boobu te tey foo ci ci euh, euh, njeexital yooyu bu ñu ko def bu ko état defee dina am répercussion bu positive ci loyer yi parce que pour nga évaluer pour nga évaluer surface corrigée ci décret boobu ngay sukkandiku ak décret 2014 euh, fixant les éléments de calcul du loyer donc tey décret yooyu bu ñu ko càmbaree xoolaat ko euh, euh, réaval réévaluer waat ko dina am benn euh, njeexintal bu positif ci ci ci ni ñuy fixer loyer ci Sénégal aussi bon en tout cas ñun position bi ñu am au niveau de la fédération mooy on fait partie de la commission et on est là pour apporter des solutions pérennes pour réguler le loyer et aussi réguler les activités de transaction et de gestion immobilière donc ñun en tant que expert lépp lu ñu gis ne moom la ñu xalaat wala ñu bind ko xam ne euh, war na mën a euh, indi njeexital bu positif ci ni ñuy réguler loyer bu boobaa au sein de la CONAREL dañ ci indi suñuy xalaat et puis euh, défendre ko fexe nu ko état du Sénégal mun a jëlee en compte. alors euh, dans la si CONAREL bi forcément dina euh, euh, lépp luy activité de transaction et de gestion immobilière. dina am euh, avis bu mu siy jox ci projet de loi ak projet de texte de loi yi nga xam ni moom la ñu nar a tëral may fàttali rek ne 2017. état du Sénégal daf ñu daf ñu euh, dafa approché woon si ñun les la FACIS fédération des agences et courtiers immobiliers ne ñu dafa am benn décret bi nga xam ne moom mooy fixer les activités de transaction e de gestion immobilière décret bi damaa bëggoon ngeen jox ma seen observation seen xalaat ci ni ma tëralee décret bi lan ak lan lañ ci war a indi comme ay njeexital lan ak lan lañ ci war a améliorer décret boobu en 2017 alors. ba ma la ko euh, voilà en 2017 la ñu def li ñuy wax la transmission de nos observations pour un projet de décret fixant les conditions d'accès d'exercice des activités de transaction et de gestion d'intermédiation immobilière donc euh, transmission observation yi État du Sénégal dafa bëggoon am suñu gis-gis ak suñu xam-xam ci projet de décret bu mu tëral ñun nag ci loolu ñu am ay observation yu ñu ko jox te observation yi bi ñuy def euh, concertation sur la vie chère observation yi wane woon nañ ko ministre du commerce wan ko euh, les acteurs concernés pour que ñoom aussi ñu jël ko en compte xam ni euh, ñun am nañ ay xalaat yu bees pour coppite bi war a am si suñuy activité bu transaction immobilière maintenant li nga wax ci formation courtier yi ñun dañ cee teg suñu loxo bu yàgg ñu ci tegee suñu loxo bu yàgg dañ cee comme ni ñuy wax on a mis la dans la pâte c'est-à-dire ñun depuis deux mille deux je pense deux mille dix-huit dafa am euh, convention bu ñu signé ak euh, li ñuy wax les instituts supérieurs d'enseignement professionnel muy les ISEP euh, du Sénégal convention boobu bu ñu signé moom c'est pas ISEP dafa gis ne. ak ñun aussi fédération bi ensemble on a vu que ni pour que ñun suñu secteur ñu mun ko organiser il faut que ñu jaar par la formation former les et ci loolu ñu am convention bu ñu signé pour que bépp acteur wala bépp étudiant bu génn wala bépp élève bu génn am bac ñu mun ko former ci les métiers de de d' agent immobilier donc depuis 2017 ñu ngi former ay jeunes yi nga xam ne ñu ngi génnee cees di def ay ay stage si suñuy agence ñun fii Dakar ak si yenn agence yi nga xam ne ñoom suñu suñu partenaires yi nekk Thiès donc euh, et depuis lors macha allah ñu ngi ci am ay résultats yu am solo donc formation boobu dafa am solo te ñun bokk na dina bokk ci suñuy position biir Konarel lu ñuy defendre aussi mooy tey que état gën ñoo accompagner pour que ñu former acteurs yi bu ñu former acteurs yi waaw former ñi nga xam ne déjà ñoo fi nekk di liggéey ak ñi nga xam ne ñoo war a ñëw nekk ay jeunes war a euh, nekk ci secteur bi voilà donc aujourd'hui euh, loolu moom côté formation bi moom am na am na am na njeexital bu bëri boo xam ne ñu ngi ciy dox te di ñaan état bi ñu gën ñoo accompagner là-dessus quoi waaw commission bi moom wàññi lañ ko ñun bi ñuy def concertation sur la vie Euh, dafa am ay propositions yu ñu joxe woon waxoon naa ko sànq ci biir proposition yi dafa am ñun lu ñu tëralee woon dañ naam d'accordoon nañ ci ñu revoir condition de fixation des des des des barèmes de rémunération des activités de transaction de et de gestion immobilière d'accordoon nañ ci parce que observation bi defoon nañ ko depuis 2017 naam aussi d'accordoon nañ ci dem ci concertation sur la vie chère que il faut que wàññi am mais ñun am nga on est des privés aussi am ay employés yu ñuy gérer am ay activités am ñu nekk suñu ginnaaw ci suñuy liggéey di voilà am ay charges ci loolu ñu am proposition bu ñu def proposition bu ñu def mooy lan mooy tey dañoo ne pour que commission d'agence immobilière bañ a Euh, nekk lu diis ci locataire bañ a nekk lu diis ci propriétaire dafa am ñun nuñ ko tëralee nuñ ko tëralee mooy lan mooy tey dañoo xalaate bu fekkee ni war nañ mën a fixer commission commission bi léegi il faut que mu am partage entre le locataire et le propriétaire pour tranche sociale pour tranche euh, pour tranche intermédiaire excusez-moi pardon pour tranche sociale bi pour tranche euh, bi nga xam ni mooy le moins moyen standing tranche bi nga xam ni mooy le haut standing euh, ak tranche bi nga xam ni mooy le luxe bu ci nekk ñun dafa am ay propositions yu ñu defoon de de rémunération des loyers boo xam ni bu ko nit yi jëlee du ñu du ñu mën a du ñu du ñu locataires yi du ñu sonn propriétaires yi ñu sonn mais bu ñu ñëwee gis ne euh, état bi jël na décision wàññi te wàññi bi dafa ñëw rek daal di dagg. de de de de pour cent la tranche sociale mooy de zéro jusqu'à trois cent mille alors que ñun ci suñuy proposition la tranche la tranche sociale on avait moo gën a conséquent dañoo ne woon de zéro jusqu'à cent cinquante mille day doon lu metti day doon lu metti donc aujourd'hui euh, certes wàññi nañ suñu commission mais am na impact quand bu négatif ci suñuy activité parce que tey ñu bëri si suñuy agence am ci yenn agence yi ñuy ñuy xool ñu ngi nekk di revoir nu ñuy nu ñuy organiser waate seen i seen i activité au sein de de de l'agence pour que pour que pardon ñu mën a euh, faire face à leur charge donc voilà donc voilà am na impact quand bu bu bu bu bu négatif quand si suñuy activité ça moom il faut le concevoir mais ñun en tant que fédération ci biir commission bi dinañ continuer di wax di continuer di défendre euh, la cause des des des agences et des courtiers immobiliers et aussi euh, di gën a joxe ay solutions yoo xam ne c'est pérenne te du sonal bailleur du sonal locataire jëm ci commission commission d'agence immobilière yi nga xam ne moom lañ moom la ñu war a fay les activités jërëjëf waaw man maa lay sant di la gërëm ci euh, déplacement bi nga def ñëw seet si ma di kontaan bu baax ci ci ci ci dalal bi ma leen bi ngeen ma bi ngeen ma permettre ma dalal leen fii quoi incha allah. waaw mi ngi noonu ki nga xam ne mooy Aïdara ñaa nga xam ne mooy SGU FACIS maanaam association bi nga xam ne moo ëmb ñi nga xam ne mooy les bailleurs ak les loueurs donc loolu la loolu la dajale donc dégg ngeen ci li nga xam ne moom la moom la wax ci li nga mooy décret bi bi ñëw na donc teg na ay mesures ay mesures d'accès teg na ay conditions d'application mais yooyu ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy respecté parce que c'est l'État du Sénégal moo ko jël donc dañ koy koy respecté mais na leen a léger ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñoom ñi nga xam ne mooy les bailleurs loueurs agence immobilière yi aussi daf leen a xaw a parce que ñoom am nañ ay charges yu bëri bëri bëri yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ ko daf leen a tegu lu mel ni employé bi nga xam ne moom la ñuy li nga xam ne mooy immeuble yi nga xam ci lañ nekk dañ koy dañ donc appliqué na leen ay problème yu bëri bëri surtout li nga xam ne mooy commission bi nga xam dañ ko wàññi ci li nga xam ne mooy seen mooy seen liggéey donc mi ngi mi ngi noonu vraiment benn problème la boo xam ne je pense que ni ñoom ñëpp ñu ngi si xalaat ak li nga xam ne mooy CONAREL maanaam commission bi nga xam moom la teg ci wàllum loyer pour réguler secteur mais aussi pour waxtaane secteur bi pour ñëpp gis seen gis si seen bopp donc ñu ngi ci liggéey boobu noonu noonu pour gën a ñoŋal secteur bi à chaque fois parce que lii ay mesures la yoo xam ne le président de la république le gouvernement jël na ko pour wàññi li nga xam ne mooy location bi donc loolu dañuy jàpp ne benn étape la ci étape yi nga xam ne yu war a yu war a ñëwaat la donc ñu ngi ci loolu pour gën a ñoŋal li nga xam ne mooy secteur bi donc proposition yi du jeex dinañ defaat ay proposition li ne mooy le CONAREL CONAREL bi aussi dina def ay proposition au président de a defaraat mooy secteur bi ñëpp gis si gis seen bopp mais nag mi ngi koy wax li ñu war a dem mooy accès à l'habitat waaye tamit maîtriser li nga xam mooy l'inflation foncière maanaam suuf si moo cher trop trop trop te loolu la ñu war a dem bu ñu bëggee location bi wàññeeku ñu ñu am fu ñu dëkk il faudra ñu wàññi li nga xam ne mooy foncier ak cheraayam bi parce que loolu mooy problème à la base bi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci wàllum location bi mi ngi noonu c'était tout pour aujourd'hui ñu ngi leen di jox dig daje incha allah lundi prochain encore une fois ñu ñëwaat seen émission avocat sur la 7 ñu ngi leen di remercier